bon appel bu ne maa ngi jot message ñoo ngi posté ñi nga xam ne xam nañ ma xamuñu ma ñëpp ngi posté cela veut dee ko kontaan nañu. Mhm. donc di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. sa relation ak sa wayjur bu jigéen def la gis rek commencé tuur ay xewal yow tamit mënoo téye téye sa rankoñ ban lien ngeen am yéen ñaar. waaw sama yaay kooku mooy sama xol parce que bi ma ñëpp bàyyee moom moo ma bàyyiwul mu jàpp ma di ma soutenir lu mu am jox ma di ma dolli xel di ma yokk xalaat. xalaat nag ci côté positif. voilà donc ma koy ñaanal mbaalo baan naa yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram parce que lii nii bis bi ma am tey lii rek la doon ñaan yàlla. Mhm. saa yu ma woowee loolu la doon ñaan saa yu jullee lool lay ñaan donc yàlla may na ko ko. ma gis ko nag moom mu gis ma rek jooy ndax man xam naa li tax mu jooy moo a jooyloo. lan moo ko wax. <laughs> waaw mais tey loolu mënut a ñàkk parce que yaay ak doom la. Mhm. Euh, mais sa ki nga xamante ni moo di sa borom kër donc doon une personne très effacée. Euh, mhm. te ñu gis mu génne démb euh, benn son tuddee ko validé mu mel ni jikko yi nga xamante ni moom la Dieyna Baldé làmbool ci mbaax ci yar ci jikko yu baax la génn ci son boobu. waaw loolu rek dama koy nuyu moom bébé d'amour faal mi yàlla faale ki nga xam ne moo ma sagal. bàyyi fi ñëpp takk ma. Mhm. donc kooku aw ma fayam vraiment li mu wax ci son boobu nag dafa ma bett man xaw moo ni que sax dina ko génnee dafa jëkk saa rek ne ma duggal sa WhatsApp ma dugg xool mooy loolu. surprise donc ma koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram. Mhm. yàlla jubóole ñu. may ñu njaboot bu barkeel incha allah. Mhm. naam. lan ngay dénkaat sa moromu jigéen yi nga xamante ni ñoo nekk ci milieu bi di door a dugg ci néegu sëy. waaw ma leen di. damay ñaanal ñëpp daal parce que instant yi moom moom amaguma conseil bu may jox nii ndax maa ngi doog a dugg donc di remercier sama nit yi nga xamante ne samay sœur samay xarit ñi nga xamante ne bu ñu ñëwul woon sax du ma mel ndax dama leen dugal sama biir xol donc ñu ñëwal ma xeebaluñ ma sama bis bii depuis boobu arrêté wuñu di ma woo di ma message c'est la première fois ngay gis xew bu ay artistes def ay hôtesse man je crois mosuma ko gis ñu wàccee seen bopp xam nga jàppee ma ni seen boobu ba léegi li ñu déggante sax lu bëri mais ñoo ngi déggoo seen biir xam nga di jéem a def affaire yi mu naaj. vraiment aw ma seen fay yal na yàlla may guddoo faram wér gu yaram liñ ma lebal nii nañ xam ne ni que lebal nañ ma teraanga nag. Mhm. dinañ ma ko dinaa leen ko delloo. moo ngi jàkkaarloo comme li ma waxoon sànq rek nee naa ko merci beaucoup mon amour su ma waxee wa euh, juum. donc maa ngi lay remercier bu baax a baax yàlla may la gudd fan ak wér-gu-yaram yàlla na yéen bi oyof tamit ndax xam naa ni man ku diis laa. macha allah. ziar sëñ bi. Euh, tey sa rakk sa xarit xewle ngeen def délégation ñëw jàppale ko ci bës bi. Mhm. waa kontaan rek parce que man ñii dañu nekk samay rakk ba pare magoo ma. Mhm. jëy naa bi xew mi tàmbalee ba tey man ak moom chaque jour ñu déggante. Mhm. lu ma def nag doy na ko. du noonu. lu ma wax neex na ko bokk nag mu doon xale boo xamante ne chaque jour fu ma toog dama koy wax ma ne ko yow sa xol rek bu la ko yàlla fayee doo tiit doo jaaxle ndax du jàpp mer ba pare lu mu wax loolu moo dëggu ci moom bañ nañ ko ba des fois dañ koy bàkkee réew fekk dëggu rek moo ko jàpp suñu ànd bii nag may ñaan balaa ma tàmbali ngeen ñaan yàlla juboo lañu ndax nag Moustapha Dieng dafa ñoo boole ci effort boole ay jigéen rek ci lu ñàkk fayda yàlla def ci barke ñu doon ay xarit di ànd ànd bu sincère boo xamante ni day daw yaram ku ci nekk day confier moromam loo xamante ni affaire daray concurrence ñoratuñu ñun dañuy ànd di bëggante te yàlla tax tey loolu la jëy laa def ba jëy naa mi woo Sabel ba mu ñëw mu boole ko ci ay magaleem te mënoon na koo bañ a def mënoon na ko ni yow waykat nga may woykat xëcc concurrence mais mbëggeelam ci moom dafa yàgg bañ na ko ba dama leen daan jéppi ni leen yéen doy ngeen waar <laughs> buñ toogee groupe di waxtaan ngeen di beru jéy laa kottu sabel ni du ko baax kon donc loolu feddali na ko tey bu ko boolee ci ay magale boole ci nabu naanaa caam mële nga xamante ni mook Basiru caam bokk ndey ak baay def na li war sabel nag affaire bi bett ko ndax ku ne xam na ni mariage ñii waajuñu ko biñ ko waxee digganteem ak loolu doon lu gàtt mais mu ñëwee ak jom mu am nag yeneen yu bari yoo xamante ni mi ngi ko doon dund dama ko ne loo fiy def lu kenn mën ta wax am dëj mais nee na ma bis bee ma ñor teewul mu bokk otes teewul mu ñëwaat ak dooleem ni ma nag mënumaa waaj dara talu ma jëndal sama rakk ji bagage talu ma def dara yëkkati trois cent mille francs mi ngi nii ni moo ko jàppalee rakkam du noonu ànd ko ak xeeb topp ma nag chaque instant mu ni ma ay joor nu may def ma ni ko yow lii bu ko xeeb yéene bi nga ñëwee moo ëpp doole mu xeeb ko lool kon donc yàlla ànd bi yàgg yàlla dëggal ànd bi te yàlla bàyyi ko borom këram may leen njaboot gu barkeel ñoom dañ maa wóolu jox ma cër yàgguma ci sëy de huit de mariage rek laa am bari na sax damay dégg <laughs> xaw naa bariwaale waale waaye yàlla na gën a yokk teewul ñu wóolu ma jox ma cër yàlla na seen jàmm yàgg yàlla jubboole ko biril may ko njaboot gu barkeel di leen remercier yéen nag nga xamante ni bu ngeen ñàkkoon suñu dund moom bu yeboo ñu dem jaay laal lali ci tali bi ndax yéen a ñuy feeñal yéen a ñuy dooleel merci beaucoup jërëjëf na bu xaalis bi bari na madame Ndiaye <laughs> kontaan naa <laughs> nii la sa mag def ak yow ak xeet nag merci beaucoup <laughs> naka nga dundee ba su mbégte bi nga xamante ni moom la la sarak ji euh, dunduloo. waaw macha allah di wax rek gën a kontaan rek ma ne ko di kontaan rek ndax euh, yaakaar naa ni man moom. ñoom samay rakk lañ Jeyna Jeyla Amira ñoom ñëpp samay rakk lañ donc dañ ma dañ ma dañ ma bëggal seen bopp bañ naa ko bu ñu toogee ñun ñëpp sax ñoom dañuy dañuy dañuy ñëw di di ku nekk uuf sama kaw ñuy xëccoo mhm. donc tey euh, foog naa tey lii rek war na firneel ne ànd bi àndu dëgg la donc tey Sabel yow laa magale mhm. boole naa rek samay magale nag sama mag nga lool kon mag ji may mi woote sama diggante man ak moom mhm. lu dëgg la donc tey nag li joor wax rek ñëpp xam nañ dama dama nekk sax si na si ay naqar yu bëree bëree bëree bëri donc tegle ay obstacle yoo xamante ne donc sant yàlla rek macha allah mais nag bu bu bu naqari di am fii bànneex day am fii ndax sama rakk ji wax dëgg fa neex yàlla ci lu ma mënti nekk bésam bii daf maa ñor te dama ko koy yéene macha allah mu nekk xale bu baax nekk xale bu yaroo donc maa ngi ñaan yàlla suñu borom bi rek yàlla suñu borom bi sàmm ànd bi. donc lafal ñu cat. ba nga xamante ni ku nekk lépp loo mbébét sa morom rek incha allah ba ñu dem ba suñu doom yi ñu koy ndeyalante. te yaakaar naa cër yooyu war na mën a nekk Sénégal. parce que musique sénégalaise toll na noonu. xol yi toll nañ noonu. donc macha allah ñi ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ni teew nañ fii di am mbégte contentement bril suñu chéri yi ñu ngi lay nuyu xamoon nañ ni dooñu nax xamoon nañ ni dooñu wor waaw naxoo ñu donc merci beaucoup merci vraiment merci ça fait plaisir quoi kontaan naa asalaamaaleykum Cheikh Yaas noo def. maa ngi fi maa ngi si jàmm bu baax. ba yaa ngi am tawfeex. maa ngi sant alhamdulilah. Euh, nga jiitu sa xarit sa rakk ci néegu sëy euh, tey ban yëg-yëg nga am ak lan kàddu nga koy dénkaat. Mhm. waaw kontaan bu baax parce que jigéen bu nekk lii ngay ñaan yàlla. Mhm. bis boo demee ba toll ci ngay xam mbégte bi nu mu neexee wax dëgg mhm. yàlla di ko ñaanal yàlla nekk njiglaayam. amiin ah, yàlla na ko yàlla musal ci cat ak seytaane. incha allah. Euh, mais mu doon xale di dugg ci dugg ci biir néegu sëy boo xamante ni Sénégal liñ koy bàkkantele naa négocier yombul euh, te ku ne xam na ni vie d'artiste dafa xaw a metti lan nga koy dénkaat. bon mën naa ne yomb na yombul. Mm-hmm. mais nga déggal jëkkëram xam nga. Mm-hmm. moom moo ñu yàlla rek tax mhm. ah, xool ci fameem xam nga xool ñi nga xam ne jiitu nañ ko ci néegu sëy bu ko defee rek dina sëy incha allah xam nga bu toppatoowee jëkkëram topp ci ay tànku jëkkëram rek incha allah dara du metti ci moom bu neexee yàlla mhm. rek ah, ngi noonu man nag aayu ma ci wax ah, di nga jéem de ko jéem man nag moom mënu ma wax di ko jéem de di di kontaan rek mhm. di fëddalewaat bu baax suñu kóllëre ci Dieyna parce que suñu nawle artiste la mais suñu rakk la bu am jom macha allah ci liggéey bi muy def. Bril tamit di koo xamante ni nii c'est un frère parce que defe naa ñun ñi nekk ci milieu culture urbaine hip hop moom dañuy xamante des années lumière avant quoi. xanaa di kontaan rek man moom wax dëgg yàlla ku ne xam na ne man kenn duma sax gis ci ay xew ak yu demee noonu mais. naa dafa am fu ma teg mhm. macha allah te defe naa sama sœur yi fi nekk wax nañ lépp mhm. Mhm. xanaa di ko ñaax rek di ko wax mu gën a góorgóorluwaat xam nga tey sëyam bu baax a baax a baax yombul nag parce que nga nekk si célébrité ba pare nekk si mariage c'est pas facile parce que nit ñi duñ la bàyyi duñ la bàyyi dañ lay topp tout le temps ñun xam nañ ci dara mais mu xam rek ne elle a un mari très discret man su ma koy conseillé dama koy wax rek mu def tout pour garder discrétion boobu boobu ci ménage am parce que moo koy may jàmm di ko wax rek mu góorgóorlu waat bu baax a baax a baax kontaan trop jaajëf merci beaucoup